yu yeggee ko téléspectateurs yi xibaaru timis yi ci télévision Futur Média la ci gën a fës bokk na ci mbiri ki nga xamante ne ji moo di jaari Sow di xale bu jigéen bi réer ca France di doomu Sénégal ay mbokkam ci diwaanu Mbour nekk ci jaaxle kàddu yu jëkk yu bàyyeekoo ci wéyjurum bu jigéen di yaayam dinañu ko déglu ci xibaaru timis yi mën a jàppit ne am na njàngum alquranul karim wàcce kaamil goo xam ne ay mbokkam amal nañu ko ca croisement Malicounda lépp rek di ñaan eh, seen doom joojee feeñ ci jamono jooju fële ci diwaanu Ndar école Fara li ko sabab moo di benn jàngalekat bu jigéen moom la ñu euh, moom la gis ci moom feebaru coronavirus bi ba tax ñu dàkkal njàng ma tey ji ci digg bëccëg gi nee nañu altine jàmm ci la ñuy delluwaat kon ca njàng ma jeneen jàngoro joo xamante ne ji nemmeeku nañu ko ci réew mi moo di grippe aviaire am na këyit wuy firndeel ne eh, am na benn ferme agricole bu nekk ci diwaanu Pout lu toll ci juróom fukk ak ñett ci échantillon yoo xam ne def nañu ko ñëpp bañ ci defee test échantillon yëpp positif waaye nag seet nañu ne ña fa doon liggéey moom amu ci kenn ci wàllu tàggat yaram ligue africaine des champions Teungueth FC xam na léegi ana ñan lay bokkal groupe ma nga ca poule D bi Zamalek ak Étoile Sahel ak li nga xamante ne ji moo di Mouloudia bu Mouloudia Doran nekk kon ci Algérie ñoom la bokkal euh, poule D bi ci yooyu la jamono ci wàllu coupe CAF Jaraaf moom war a contre euh, Platinum Star euh, dip équipe bu fekk baax ci réewum Zimbabwe. ci xibaaru timis yi ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko junjewoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaaru timis yi doore ko ak lu soxal mbirum xale bu jigéen bii di jaari Sow benn doomu Sénégal la bu nekkoon ci France ginnaaw feetu Noël yi ba léegi mu réer ay mbokkam kenn xamul ci moom dara mbokkam yi fii ci diwaanu mbuur fi mu fekk baax ñoom it nekk ci jaaxle kàddu yu njëkk yi bàyyeekoo ci way jurumu jigéen di yaayam dinañ ko teewlu ci kanam tuuti waaye it xamle am na njàngum alxuraanul karim boo xam ne amal nañu ko fa mu dëkk ngir di ñaan yàlla sunu borom mu nital leen seen doom jooje di jaari sow Abdourahmane Diallo. mbokk xarit dëkkandoo ñëpp dal di ñëw ci waa këru jaari sow ci croisement Malicounda téléphone yi di sone fu ne ku ne bëgg a xam lu xew. ñu fekk ko ci bunt bi yaayu jaari sow kanam gaa ngi yërëmtalu bët yaa ngi fees dëll mu daal di ñuy dalal. xame naa ah, ci nii man maa mënut ma mën a mhm, mhm, wetam nijaayu xale bi nga xam ni bokkoon na ci ñu gënoon xarañ ci réew mi ci wàllum njàng. moom mi nga xam ni sax ay fan a ngi nii kenn tegu ko bët ci France kàddu yi la daal di yëkkati. On a appris a disparu, comme ça. Est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une Est-ce que voilà, pense au pire mais bon. pense au pire. xarit mbokk dëkkandoo ñëpp daal di ñëw ngir ñu wàccee kaamil ci kër googu loolu rekk ngir yàlla dimbale leen ngir jaar yi mën a feeñ ba tey lu jëm ci mbirum jaari euh, Sow moome di doomu Sénégal bu réer ca France ab communiqué bu bàyyeekoo ci service gestion des étudiants sénégalais ci diwaanu bitim réew xam leen nañu daal saisir nañu leen juróom-ñaari fan ci weeru janvier lycée Louis le Grand bi xale bu jigéen doon jàngee ñoo leen saisir ndax dañu ko gisul moom Diary Sow ginnaaw bi ca la ñu jóg dox ci ay jéego ba xam leen ne te ci woyule wàll am na décision boo xamante ne ji jël nañ ko ngir ab déposition bu ñuy def euh, consul général ba moo ko def ca kanamu commissariat bu police bi nga xam ne moo mën a lijjanti lu ni mel ca diwaanu Paris lépp rek liñ ci jublu mooy fexe daal ba gis euh, ci nu mu gën a gaawee kookee nga xamante ne ji moo di jaari euh, sow waxtaan leneen ci xibaaru timis ci télévision Futur Média moo di woppi coronavirus ji seetlu nañu ne am na ca école bi nga xam ne moo di école Faramboj nekk ca diwaanu euh, Ndar li ñu seetlu mooy benn jàngalekat bu jigéen moom la ñu gis ci moom woppi coronavirus ji ba tax na njàng ma daal di dakk tey ji ci digg bëccëg gi lu aju ci njàng mi ñu ne danañ ci delluwaat altine ginnaaw nag bu ñu jëlee matuwaay yi war ngir fexe ba corona bi bañ a raw ci boobile école Saint-Louis ñu ànd ci ak Ousseynou Diop. yëpp leeral jëm ci li nga xamante ne ji mooy eh, feebaru coronavirus bi am ca eh, diwaanu Ndar benn jàngalekat bu jigéen ci moom la ñu nemmeeku li nga xamante ne ji moo di woppi coronavirus ji ci école Fara Mbodj euh, des na ci dellu si wat ci suñu yeneen jotaayu xibaar waxtaane lu aju ci ba tey feebaru coronavirus bi ak euh, yëf yëkk tolluwaay beeg bilan beeg ni ñu ko amee tey jii moo di daal lu aju ci coronavirus bi gis nañu ne tey jii am na juróom-ñetti doomi aadama yooyu ñàkk nañu ci seen bakkan lu aju it ci test yi nga xamante ne ji kon euh, def nañu ko mi ngi toll ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ñu nemmeeku ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom yoo xamante ne ji amee nañu feebaru euh, coronavirus bi euh, loole kon mooy li nga xamante ne ji nangoon nañu ko ci ministère de la santé ak euh, action sociale jëm ci wowile wàll wax ci weneen wàll mu di li ñu seetlu fan yi ci réew mi ginnaaw bi ñu fi indee li nga xamante ne ji moo di état d'urgence bu ànd ak couvre-feu bi loolee tax na jëwriñ gi ñu dénk wàllu ndaw ñi di ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall yëkkati kàddoom di sàkku ci jeunesse bi ñu dawal responsabilité ci li ñu nekkee ngir ñu leen di bañ di dégg ci wowile wàll àdduna jëmeet ci lu aju ci wàllu vaccin bi ñu ànd ci ak Mamadou Fall ci ay leeral. ndaw mooy banqaas bu am doole ci réewam war naa tax nag moom ab engagement. ak taxawaayu patriotique yenn ci jeunes yi nga xam te ni wàcce nañ ci tali bi war nañ xam ni mboolem mesure boo xam te ni njiiti réew mi jël na ko rek pour intérêt sénégalais yëpp la. état d'urgence bi nga xam te ni couvre-feu la ci àndal euh, ci région Dakar ak Thiès lu ñu xalaat la. rafet lu bu baax dogal yooyu nga xamante ni président de la république jël na ko te mu bokk ci dogal yi nga xamante ni li mu mës a jël euh, ci ci ci ci. Euh, bi pandémie bi commencé léegi dogal yoo xamante ni la lépp lu mu ci jël rek mooy li nga xamante ni moo arrangé population bi arrangé réew mi. nee na Fatoumata Tall moom nag di conscientiser yenn pàcc ci gone yi nga xamante ni rek ñu ngi wàcc ci tali bi ñu am taxawaay gu ñoŋ. safaan du ndaw moo tax du ñu jóg ci di di leen sensibiliser suñu rôle mooy wax ak ñoom sensibiliser leen yedd leen yee leen waaye nag à côté dafa am la nga xamante ni état bu ci tolloo day jël ay responsabilités loolu moo tax nag bëgguñu état egg ak foofu ndaw ñi moo tax ñu leen di sensibiliser ñu toog seeni kër parce que nag liñ leen demandé difficile vingt une ba cinq heures du matin loolu defe naa ni euh, am na dëkk yoo xam ne ñu ngi dund pire. mu weesoo nag xalaat yi ñenn ñi xalaat ci vaccin yi ñu wax moom jëwriñ ju ñu dënk wàllu ndaw mi ngi dalal xel yi nee na sax moom dana bokk ci nit yu njëkk. yiy vacciné wu. non seulement nangu nañ piqûre bi ñëw mais bu piqûre bi ñëwee man en tant que ministre de la jeunesse nag parce que ndaw mooy jiitu ci lépp man porté wu naa volontaire pour taxaw njëkk pikiiru fii ci Sénégal. Sénégal soxla mboole mi doomam ngir nag jàmmarloog bile mbas loolee waral ak ñu war a nag boole suñuy doole yenn gone yi ñu nemmeeku ñuy def yenn dérapage yi war nañ ko arrêté yoon dana dal seen kaw. mbas moomee seetlu nañu ko ci diwaanu Kees seetlu it ñu bari ñu fay ñàkk seen bakkan looloo tax kilifa yi taxaw temm ci seet nañu ko dakkale góorgóorlit ba yëf yi du lawee ci l'école yi lu ni mel tax na directeur formation communication bu ministère éducation nationale wàccoon ci terrain ba foofee ci diwaanu Ndar bari ne eh, diwaanu Kees bari ne école yu bari yoo xamante ne ji dem na fa yóbbaale na fa it ay jumtuwaay yoo xam ne gune it nañ ci mën di jafandu ngir eh, mu jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex eh, coronavirus bi Cheikh Anta Diop Sey Latir mu amaloon ab tournée jagleel ko école yu bëri nekk fii ci diwaanu Thiès directeur formation ak communication ministère de l' éducation nationale sàkku nag ci jàngalekat yi ñu topp bu baax diggal yi ngir moytu nag jàngoro ji ci l' yi. li ñu décidé maintenant mooy wàccaat à la base ñëw jege population yi pour man man leen amal amal njariñ xam nga chef de l' état président Macky Sall bu fekkante ne bii dafa nangu ubbiwaat école yi c' est parce que dañ ko garantir ni dañu respecté protocole sanitaire. fexe nag ba ndongo yi respecté nag mesure barrière yi muy takkam masque bi gën ci leen ñaax ndongo yi ak jàngalekat yi. protocole sanitaire boobu nag mooy takk ay masque raxas suñu loxo fexe ba xale yi duñ di saafante kon ñu rappeler IA yi IEF yi di rappeler les directeurs d'école et les chefs d'établissement kon loolu dañ cee war a taxaw nu mu gën a rafete parce que xale yi dañoo dëgër bopp te comme ñoom feebar bi du leen rey. évidemment euh, seen yoon du ci nekk mais dañ leen di war di surveiller fii ci lekkool bi ndax ñu mën a continuer di di tudd suñu lekkool Mouhamadou Moustapha Diagne di directeur formation ak communication ci ministère bu éducation nationale jagleel nag lekkool yi nga xamante ne wër na leen ci diwaanu Thiès. ay imprimante ay dictionnaire matériel géométrique ak ay cahier yu takku jagleel ko yenn ci ay lekkool fii ci diwaanu Thiès. Cheikh Anta feebaru coronavirus beeg ni mu dellu si ci réew mi tax kilifay réew mi jëli matuwaay matuwaay état d'urgence ak couvre-feu ci Thiès ak ci diwaanu Ndakaaru yamuñ ca ne dafa jël ay matuwaay yu ñu ci dooleel économiste bii di sa Babou gis ne matuwaay yooyu nga xam ne àndale nañu ko bu ñu moytuwul dana yàq lu baree bare ci wàllu koom gi yoon la ñu dellu ci gannaaw ci naka nag moo di daal lu aju ci couvre-feu beeg euh, état d'urgence bi ñu seet nu ñu ko gën a woyofale moom Meissa Babou ñu teewlu ay kàddoom ci micro Maymouna Ndiaye couvre-feu moom bu fekkente ne danga nga caa jublu guddi nit ñi bañ dem dajaloo fenn te fa ñuy dajaloo tudd baar fa ñuy dajaloo tudd ay restaurant man damaa jàpp ne soo tëjoon baar yi tëj restaurant yi ne leen su 8 jotee wala fu 9 heures jotee tëj leen man jàpp naa ne couvre-feu amatu fa wàll ndax soo defee couvre-feu bi eh, non seulement ñooñu dañuy gaañu mais couvre-feu day gaañ ñeneen da ngay dem ba eh, gis ne ñun fu mel ni sunu secteur bi école Euh, bi ñu defaraatee euh, horaire yi 30 minutes la ñuy perte ci jàngale bi par jour te loolu xam nga su yàggee dafay bari soo demee tey euh, ci jaaykatu fonde yeeg cere yeeg laax yi guddi yi te ñooñu ñu ci ëpp ay veuve ñoo koy jaay ay ñu amul doole te nga xam ne ci la ñuy dundee da leen di affecté kon damaa jàpp ne entreprise yi aménagé yëpp ñu doon wàcc fi ne nii 6 heures dañuy obligé léegi di wàcc ay 4 heures ndax oto amul mu mel ni. Euh, couvre-feu bi daal euh, li mu gaañ daanaka dana tolloo confinement ba ndax entreprise yu bëree bari transport bi tey day perte 30 pour cent euh, ci chiffre d'affaires am yeneen activité yi tamit xam naa ne kenn ku nekk yaa ngi perte ay une heure de temps une heure de temps une loolu nag soo ko dajalee ci koomu réew mi finalement dafay bëri te donc dafay gaañ. syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci hôtel yi restaurant yeeg salle de jeu yi fii ci Sénégal amaloon nañ ab janook taskatu xabaar yi la gën a fës ci seen wax jam moo di ànduñu ci couvre-feu bi ndax dafa bari lu mu leen di yàqal yàq loo xam ne yàq woon na ba noppi sax nee nañu it bëgg nañu daal koppar yi nga xam ne nee nañ dugal nañu ko ci wàllu hôtel ngir jàppale leen ko état bi def lu ni mel ñu càmbar ko ba xam lu ca nekk fan la jaar dakkal it dàq gi ñuy dàq seen liggéeykat yi te di ko teg ci ay mu di motif économique loolee lépp ay ñaxtu la yoo xam ne ñi ngi ko becc ci kanamu taskatu xabaar yi ba ñuy jo euh, janoo ak ñoom Fat Bintou Konté même bu fekkee ni lu jëm ci wàllu wérgu am askan wi moo tax nguur gi décrété li nga xam ne moom moo di couvre feu ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur yi bi baar ak restaurant tey nag dañoo jug di xam ne ni li nga xam ne moom moo di couvre feu bii neexu leen daal ndax dafay impacter négativement ci li nga xam ne moo di seen secteur. duñ ne d'accord ci couvre feu bi ndax ñoom dañuy xeex feebar feebar bi d'accord nañ ci. mais ñun ñun ci boole lañ d'accord ndaxte ñun amul benn secteur boo xamante ni mës nga fa dégg cas ci première vague bi ba deuxième vague bi ñun loolu lañu wax lu ñu ci boole. lu boole woo ci waa marché bi boole woo ci école yi bëgg ci boole liggéeykati oto leen ñoom kat yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci hôtellerie nag ña ngay artu nguur gi di ko xamal ni nag na arrêté moom moo di licenciement pour motif économique yi nga xam ne ma ngi koy jox ñii nga xam ne ñoom ñooy hôtel yi le ndax taxawaloon nañu benn plan de résilience état bi joxe woon ko ngir nag li nga xam ne moom moo di ay dàq kat ñu dakkal ko. instruction au niveau du ministère du travail le président de la République pour demande yi nga xam ne employeurs yi ñu ngi koy def pour motif économique wala pour pour fermeture de. Euh, demande de fermeture ñu arrêté ko pour le moment ndaxte amul benn prétexte boo xam ne war nañ ko mën a demande ndaxte travailleur bu liggéey yow pendant 17 ans 17 ans kooku nekkatul travailleur c'est un actionnaire lañ ko mën a tuddee ci kër gi te ñëpp xam na ni motif économique wala fermeture dafa léger liggéeykat bi de droit boo xam ne liggéeykat bi war na ci mën a jariñu te loolu ay prétexte la. Mansour Gaye sax ak ay naataangoom di laajte xaalis boobu nag fan lañ ko def ndax ñoom ñi di yi gisuñu ko benn yoon. ñu man la président fonds yi muy wax li muy destiné ak ma metti koo wax mu ne la gisul dara léegi nag nañu convoqué ñi doon jox ñu laa liste de bénéficiaires ñu xool ñi nga xam ni wàññi nañ ñu daan leen kaso sax xaj na ci ndaxte mën nañu la jox ay milliards ba pare nga dem di wàññi personnel bi ñu dem toogi ay borom kër fi nekk ndaxte je vois que ni bu fekkoon pour bénéficier rek kenn gënu ci placé King Fat wala teeru bi vrai ou ñoom ñoo gën a rëy ci secteur hôtellerie te ñoom ñoo compressé ñooñu nan la ñuy dot ñu leen di doter des fonds ba pare ñuy compenser kon ñooñu mun leen jox xaalis pour les travailleurs pour ñu conserver les emplois de retour ñuy libérer les travailleurs kon joxe bi amul solo. liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk secteur hôtellerie bar ak restaurant jamono ji nag nee nañu bu ñu sañoon ñu amal ab benn ndaje bu mag boo xam ne njiitum réew mi moom moo koy taxawal te nag ñu boole leen ci bile yoon te nag nee nañu fas yéene ñoo nag ci fan yi ñu dëbmal rek génn ci li nga xam ne moom moo di mbedd mile ngir a wax li nga xam ne moom moo di seen naqaar. dogal boobe ñu jël ñeneen ñu ci am lu leen metti ba wax ko ñoo di jaaykatu fëgg jaay ya ca diwaanu Dalifort nee nañu li ñuy tere rassemblement tax na gisatuñu client te ñoom du ñoom ñooy lawal jàngoro ji fii te it lu bari ci doxinu réew mi ci wàllu koom seen loxo nga ca ne weeru yàlla sàkk lañuy dugal ci nafak trésor dina mat juróom benn million yu teg ñetti téeméeri euh, juróom six million trois cent mille ci niñ ko waxee ba tax na daal bëgg na kon bëgg nañu ñu leen a bàyyi xel ñu ànd ci reportage ak Abi Faye saag yi ay fëgg jaay la def ñu koy wàccee ci camion yi ñoom jaaykat yi nekk ci fukk ak juróomi marché hebdomadaire yi nekk ci diwaanu Dakar ñu duppee leen ay luuma ñoom ñi ne mënatuñu gannaaw arrêté ministériel gi leen aaye seen i yëngute ci biir marché gi waral na itam seen i fëgg jaay yi ñoom nii rek lañ koy xoolee ak naqar. maanaam sa bagage nga yaakaar ñu xëy ni la doo liggéey loolu métti du xol mënu ko weesu loolu mooy suñ métti du xol ñuy ñaan nag maanaam ñu bàyyi ñu liggéey. marché amul tey. lii mooy suñu naqaru xol te boole ko marché bi ñun kenn ku ci nekk yaa ngi sa gel distance bi ñuy wax am nañ ko. ñu ne bokk nañ ca ña nga xamante ni ñiy duunal keesug trésor lañ. ndax lu weesu juróom benn million des nañ koy joxe weer gu jot ñoom maire yi. ñu trang mooy suñu bureau mooy suñu magasin ku ñu ko bëgg a xañ nag mooy rey nga ñu corona nag la ñu wax marché bi indiwul corona daaw 3 mois lañ ñu tëjoon souffrir yu bari ñu bari balay seen bori dépasse fayaguñ ko. kon buñ taxawee bëgg ñoo tajaat dañ ñoo bëgg a rey nañ ñu dimbali laay rasul ministre Senik jamono ji dafa gëll goosee ndax tamit wàllum fëgg jaay la ñuy yëngu tax ñuy woo gouvernement bi mu jàppale leen ngir ñu gën a mën a wéyal non marché global marché bu nekk ak facture am dafa am marché yu mag am marché yu ndaw mais biñ globalee marché yëpp six millions trois cent mille mooy mooy mooy facture bi nga xam moom la luuma di dugal quinze trésor par par mois xayma romb mille cinq cent personnes ndax boo xoolee jaaykat yi mille mille cinquante la woon mille cinquante moo nekkoon ci jaaykat yi maanaam bokkut ak ñi nga xam ñoo yor camion yi camion bu ci nekk dix personnes ñoo ciy liggéey ak chauffeur ba ak impérateur ci marché ak luuma bu foor fii amul kenn ku fa lal sab njaay te it toll nañ ci junni ci ay jaaykat yoo xamante ni dañoo fas yéene banque seeni i ba keroog ñu leen di bàyyiwaat ngir ñu mën a yëngatuwaat jaayaat seeni i fëgg jaay yi vingt une heures maanaam neuf ci guddi ci la couvre-feu bi di tàmbali loolee tax na nag fu ngoon xasee jot kenn ku nekk yaa ngi seet nooy def ba mën a yegg sa kër couvre-feu bi bañ laa fekk ci biti li mu jur moo di embouteillage bu metti ci dëkk bi seetlu gi mooy daanaka ñu bari ci tali bi la ñuy yendu loolee nag euh, tax na li ko gën a yokk mooy nee na ñu it wote yi place ñuy jël léegi dañu am fu ñu leen di yemale ci yooyu la jamono ki nga xamante ne moo di directeur des transports terrestres di euh, Cheikh Oumar Gueye xam leen na aju daañu ci jël téeméer boo jël ñaar fukk ko ñu yëngu ci wàllu euh, opérateur économique yi ci wàllu transport ngir ñu dimbali askan wi ba ñu mën a yegg seeni kër laata couvre-feu bi di tàmbali Mohamed Sambou Younous Diatta. ñibbi sa kër ci lu teel laata waxtu couvre-feu bi daanaka nag nekk na lu jafe loolu ndax embouteillage yu tar yi ñu nemmeeku ci ndakaaru mu nekk ab njëkkante ak waxtu bi ci ñenn ñi nga xamante ni sax ñoom jot nañu soppar ndi si waxtu yu ñuy liggéey ngir bañ rek couvre fa bi fekk leen ci mbedd mi. xaw ma sax lu may lu may dawal waaw parce que maa maa ñibbi fii ba ba ba kii laaru set caare yi caare yi si la caare xam nga nga jóge heure bi di wàcc ak circulation péage bi yaa ngi xoolaat heure bi ah. fii ci terminus bus Tata bu wakaama dogal yu bees yi ñu jël ñeela li nga xamante ni moo di dem ak dëkk bi nekk na lu luñ fiy waxtaanee ci lu jax moo xam régisseur la wala sax ab client ku ci nekk rek ak ni nga jàngatee yëf yi. Euh, ba léegi amuñu oto léegi oto yi fi jot a ñëw dafa fees toog nañ fi apen vingt à trente minutes ñu soog a dem. dañuy taxaw a taxaw a taxaw clients yi sax dañuy mujj énervé. dama oto yoo xam ne bu ñu agsee fii 17 heures du ñu mun a dellu bu fekkee oto boo parce que lii yi dañ koy séparé deux parties dix fanaan Thiaroye dix fanaan Wakaam ñi nga xam ne dañuy fanaan Wakaam nag bu ñu demee ils sont obligés. ñu ñu war a ñëwaat Wakaam. ngir ki yore commission AFTU nag wàññik lim gi ñeel place yi ci biir bus yi bi yoon nag du gàllankoor bu baax seen wàllu liggéey loole wuuteeg lool ak li ñu nemmeeku woon ci état d'urgence bu njëkk bi. mois de mars bi passé bu ñuy débuté ñu ñu joxoon place assise ñu dem ba avant le 20 ñu ne ñu léegi au lieu de place assise mais dañ koy xaaj kuy yëpp 22 personnes 11 personnes ngay yëpp mais bii boo seetee ni ñu déparé danañu au lieu de personnes. ñu leen bàyyi ngeen yàpp 40 personnes. ngir fexe ba askan bi teel a ñibbi seen i kër te bañ couvre-feu bi fekk leen ci mbedd mi moo waral am na ay pexe yu ñuy xalaat bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo jiite transport terrestre bi. lu ñu am ak euh, opérateurs yi donc euh, en tout cas jubo mooy que nañu jël seen parc bi yëpp lépp li nga xam ni moo doon parc lu ñuy woowee réserve technique bi sax. ñu déployer ci biir réseau bi nga xam ni yokk vitesse de cirque vitesse de bi nga xam ni daañu mën a jël usage yi nga xam ni ñu ngi ci tali bi yëpp bëgg a ñibbi. état d'urgence bi nag ànd ak couvre-feu boo xamante ni dañ koy amal fii ci Ndakaaru ak ca Thiès moo waral askan bi am na ñu ci jot a sopparndi seen i doxalin waaye nag jafe na ci ñoom ñu mën a ñibbi seen i kër ndax embouteillage yu métti yi fii ci Ndakaaru. yeme wàllu wér gu jot nañu aw kayit wu leen di dëggal ne wopp ji mi ngi ci réew mi ci ferme agricole bu nekk ci diwaanu Pout ci la ñu gis lu ni mel lu toll ci juróom fukk ak ñeenti échantillon yoo xam ne def nañ ko def ci test jëlee ko ci ginaar ba ñu ñëwee euh, ñoom ñëpp dañoo positif leneen la ci am ne xibaar bu neex sax jëm ci welu wàll moo di ña doon liggéey ca ferme agricole bi ba ñu jëlee ci ñoom i prélèvement it euh, ba ñu defee ci ñoom ay prélèvement échantillon ba ñu leen yóbboo def ci test bi ñu ñëwee li ñu seetlu mooy test yi daal wane ne ne amul kenn ci ñoom kook grippe aviaire bi mi ngi ci yow fàttali ne yi ña nga leen defee woon foofii institut Pasteur waxtaanee wàllu tàggat yaram ak ligue africaine des champions tëngéej FC xam na léegi ca ban poule la nekk ma nga ca poule D ba euh, poule de boobee moom tëngéej FC mu bokk ko ak yeneen i club yu ci mel ne euh, euh, yu ci mel ne kon Zamalek Étoile Sahel ak Mouloudia Dora nekk ca Algérie beneen équipe bu Sénégal bi engagé wu ci compétition africaine yi moo di. Euh, jaraaf ci wàllu coupe CAF jaraaf dina joué ci tour 4H euh, ak euh, lii di Platinum Stars nekk kon ca Zimbabwe. mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaatu àndoon ci ak yéen 20 le journal bi di dellusiwaat ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diawo ñu delloo kàddu gi soxna Aram Touré muy ak yéen ci soir d'info soxna si kàddu gaa ngoog.